war di jàll saa su nekk ndax génération bu nekk loola daf lay jariñ te dangay ngay noppalu ci àddina noflaay boo xam ne si amul dara lu ko mën a may lu dul loola mooy wàññi say xemmemteef ak say mébét ba ñeetaane du la dugg te ku ñeetaane duggul ci yow rek doylu da lay yomb waaye ku ñeetaane dugg rek du too doylu moo tax nit ki lu ko nit rawee rek day taxaw di combattre ak moom te loolu day da ngay xat ci àddina lool sonn lool doon noppalu te doo mën a it am dara te it jaamu yàlla ga la war doo ko def te bu ëllëgee moom jaamu yàlla lañ lay laaj duñ la laaj lenn ci àddina lu dul jaamu yàlla loola nag ñun moo tax ñun toujours rek dañuy bëgg képp ku ñuy waxal rek muy doon wax joo xam ne sii ku ko dégg danga ci mën a jariñoo ndax euh, addina bii dafa xat addina dafa metti te bëgg-bëgg yi bari te kenn ku nekk la nga bëgg bu fekkee bëgg nga koo am rek coono day daal di dugg te yàlla jégle la ko nit moo tax mboolem luy jëriñ nit ki rek wàccaale ne ko ci addina tasaare nit yi na kenn ku ne am lu mu la ci am lu la ci xañ daal wax nag ne booloo leen bu ngeen booloo kenn ku nekk la nga manqué sa morom dana la ko mën a jox kon wet googu buñ ko dee xool rek dañ ciy mën a génn xam naa daal ku bëgg a noppalu ci àddina lépp looy def looy def ci àddina moo xam jaamu yàlla la moo xam lu mën a doon ci xeeti baax-baax na yàlla rek tax yàlla ndax bu yàlla taxee bu lëndëmee yàlla nga cay euh, xaar bu leeree yàlla nga cee xaar soo wéetee yàlla nga cay wéttalikoo soo wétali ko it yàlla rek nga ciy bàyyi xel loola dana tax la ngay def nga am ci tuyaaba addina ji nga xamante ne sii moom la ñëpp dawutit yàlla dana la ci jox sab cër nga mën a téye sa ngor ba mën a jaamu yàlla ndax sëñ Tuubaa dafa waxoon ne jamono ngi ñëw joo xam ne la des suñ digg ak ci ñu àgg foofa juróom fukki at la juróom fukki at boo xam si koppar dana daj addina bi kapp nit ñi danañ daw di ko wuti te duñ ca jiital yàlla duñ ca ànd yoon ti bi sallallahu alayhi wa kon nag la leen ca mën a fekk mooy ay coono dong dong dong dong leen cee mën a fekk te loolu ko wax dëgg xam ne li dal addina bi mooy ay koppar waaye yéen ñii nga xam ne nag defaru ngeen ba baax ba noppi la koppar yooyee bu dikkee bu leen ca daw jëm ndax bu ngeen ca dawee jëm mën naa récupérer seen baax gi nekkoon ci yéen kon yéen bu nit ñi dawee ne bërët daw di wuti dërëm ni yéen na ngeen daw wuti ngërëm te ngërëm loole bu ngeen ko amee dërëm baa ngi ci biir ah xanaa ma fàttaliwaat ko rek jëmm ji dikkoon ci moom na ko ah, mbàkke day gis naa ne day am nañu amoon alal dem bàyyi ko am na ñoo xam ne si dem nañ bàyyi fa alal ja am na alal ja dem na bàyyi leen fa ñenn ñi réer nañ ñenn ñi faatu nañ ñenn ñi ñi ngi ci fitna waaye man nag mbakke damaa bëgg alal lool lu ma la nëbbu sama dëgg waaye mbakke damaa bëggoon nag alal jooji nga ñaanal ma ko ma bari la ko lool ba soxla su ma am man ko cee faj sëñ bi nag mhm. ne ko Mbàkke dama bëgg am doom ju baax joo xamee ne que nii bis bu ma fi mën a wuutu ci lu baax loolee ma def sëñ bi mhm. ne ko mu ne dama bëgg gudd fan lool ba jéggi dayoo sëñ bi ne ko mu na ko mbàkke damaa bëggit bu may faatu di dem àjjana yii nag mbàkke man defaluma yàlla lu ma ko mën a may defaluma yàlla lu ma ko mën a may yow mi defal yàlla nag loo la ko mën a may te xaritoog yónnante bi te boo ñaanee yàlla yàlla may la laa bëgg mbàkke nga defal ma yooyu yii sëñ bi ne ko noppi nga mu ne ko mu ne ko xam bu may ñaan yàlla nag xam naa la may ñaan yàlla man mii nga ne lu ma ñaan yàlla mu may ma ko su may ñaan yàlla xam naa la may ñaan yàlla waaye nag nañ tàmbalee ci loolu nga njëkk a wax alal jooju nga wax ne da koo bëgg kat koy maye ta bareel ko nii nga ko bëggee mooy loo am delloo ko ci yàlla loo am delloo ko ci yàlla loo am delloo ko ci yàlla daa ne ko boo toogoon ci sab néeg muy taw am ca koñ boo xam ne sii dafa dafa dajji ko wala dafa xeddi ko ndox ma di ca jaar di dugg ci biir néeg néeg bi ngay tanq ndox ma di ko jaarale fa mu jóge nee na boo toogee tuuti am wal dan la sonal ci biir waaye booy tanq nag lay tuuru ca biir di ko yóbbu di sànni ci bitti lu mu bari bari dana mas a jeex kon nag lépp lu ngeen am na ngeen ko delloo yàlla booy delloo yàlla danga dem ba li nga bëgg lépp da ko am te da nga ci mën a jaamu yàlla loolu mooy maye alal mooy loo am delloo ko ci yàlla te ni koy amee set doom jooju nga wax ne moom nga bëgg it da koy wutal waajur woo xam ne dërëmu kenn kenn kenn du ca dem mooy ngay ngoro koo xam ne si fekk nga waxi jàmbur nekk ci na nga dem ci ku dërëmu kenn kenn demul nga waxtaan ak moom mu bëgg la nga bëgg ko ay mbokkam bëgg la nga wut alal ju lew ju lew def ko ci biir soo ko ca defee it doom joo ji nga bëgg mu mel ni nga bëgg na fekk la nga bëgg ca moom mu am ci ay waajuram kon sëñ Tuubaa waxati na foofu wax joo xam ne si sëñ bi day dox ba na kenn doom ji nga bëgg ci baax mu mel ne na fekk la fa nga koy wutee mu am fa lu baax lu ne dañ koy doon waaye boo wutee soxna ngir ab taar wut ko ngir ab tolluwaay wut ko ngir pookarewu te yorul jikko ju baax it tuut taar li nga bëgg ci doom ji doo ko am ndax doom ja ndey lañu na nag bu fekkee la nga bëgg ci sa doom am na ca askan woowee boo demee ah man mën nga am doom ju mel noonu sëñ bi néew ko da nga ko am de mën nga ko am kon loolu moo la koy may gudd fan gi nga waxit ne da koo bëgg mooy li la yàlla jox ci wërsëg sag nga ko bokk ak ñi fi nekk te bu leen ci jéppi bu leen ci ciipatu bu leen bu leen bu leen bul def foo di ko waxtaane loo defal nit di ko ko wax soo leen féetee ci foofee ña génn àddina yi te nekk bar sàq nga di leen sàkkal sarax ci alal joojee danga fi yàgg ndax ñooña duñ bëgg mukk nga fekk si leen ndax fa nga leen féete ñi ngay dimbali ci sa alal te doo leen weer doo leen jëppit duñ bëgg mukk nga jóge loolu moo fi tax a yàgg te wér bu mujj bii nag nga xam ne mooy da bëgg boo faatoo dem àjjana na ngay sax ci lu baax guddi ak bëccëg sabaan wa masaan sarxan wa xarban sa yitti jëpp def ko ci jaamu yàlla soo ca teggi sa tànk bu malakul mawtu dikkee bu ne laa cas du la mën a yóbbu fenn fu dul àjjana kon nag li nga ci soxla lépp lépp lépp mi ngi foofu daal di terminer nag ci fi nga xam ne wax na ne maa ngi leen di dénk yett yoo xam ne ci man maa nga ci muy at alaaxira gële nga xam ne fa la ñuy jëm ëllëg ëmma fa kumpa bi yàlla sosee àddina ak léegi ba fii ñuy taxaw wax ëmma ci kumpa àddina bii ñu nekkit ëmma ci kumpa kon nag fu ngeen mën di nekk ñetti dara yii laa bëgg ngeen di ko bàyyi xel dara dara dara muy yàlla mii ko xam ci moom dara doo ko moy ci dara waaye adduna mii ku xam ci moom dara doo ko dénk dara ndax lum la leb du la fay te day war allaaxira mii nag ko xam ci moom dara lépp loo xamee nekk nii jëf nga ko ba dawal ko ah loola day doo ko naw mukk ndax xam nga ne foofa dara du fa doy kon ndénkaan la loo xam ne si dafa war di dugg ci boppam nit ki ndax dañoo toll ci jamono ju lëj joo xam ne saytaane fi mu ne occupé na buntu yëpp fépp lu baax nekk seytaane toxal na fa lu baax jëm istala fa ay bànqaasam te loolu moo indi jàmm te du tax mukk nga noppalu te li ngay wutit bu la ko yàlla joxee du tax nga noppalu du la tee feebar du la tee dee te ko faatu it lu alal yi bari bari bari dërëm bu ci génn na la wóor na la fekk ci biir bàmmeel ba ak la la di yàlla di atte na ko amee ak la àq ja ca waroon a génn ak ñi koy jëfandikoo dërëm bi fu mu dugg dana la fekk ci bàmmeel ba te boobaa da nga xat bëgg a dil si ci àddina te du too a dil si